ñi fi teew ñëpp ci jigéen ak góor mag ak ndaw ñu leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen wax ne li nga xam ne moo ñu fi tax a daje tey Nous avons le programme d'entraide sociale pour les retraités et les veuves de la commune de Biscuiterie Nous le ko PANSOR le programme PAN-SOR. lan programme Nous avons dañu programme. ne retraité ce revenu day wagneku te so amul soutien day indi une fracture dans la famille ndax ku doon mun fuk nga yew rek ne léegi juróom ben la mun wala juróom-ñaar amuloo ben jàppale état dimbaliwu la mairie ministre dimbaliwula la keneen dimbaliwu yow kese ak sa njaboot te nga leen daan defal fukk ñu ne la retraité nga juróom-benn yi sax doo ko mun a def waaw kooku su amul ndimbal fu mu jëm fu njabootam jëm te ñuy ay sénégalais kom ñun. ëppalewu leen dara une carte d'identité nationale moom la ñu bokk ñun ñëpp jàppale nañu ba dans l'éducation le président de la république mi ngi def qui ci éducation ci li président Makissal, Sall tabax ci ay école ca Senghor ba président Macky ba ci Abdoulaye Wade amul benn président bu tabax nombre d'écoles bu président Macky Sall tabax amul def leen compte et c'est la vérité ngeen dem ci collège centre de formation université yi son bilan dans l'éducation def na li mu mun def na li mu ngeen dem ci programme mu jigéen ñi ak les jeunes mu créer le programme DER ne ñëw leen ñu lebal leen ngeen dem liggéeyi ndax du ku nekk laa mun a jox liggéey et il a raison état ba mu dej cent fonctionnaires la am yu muy fay totalité li état di fay ci salaire matul deux sénégalais bon 14 millions et quelques yi ku leen di fay loolu motax mu créer des programmes yu tudd ni DER des programmes de formation etc. cetera et cetera programme yaa ngi fii ku ko xol ding ko gis bon koku def na li mu il nous a montré le chemin mooy moy solidarité sociale lolu nak que waral ñun am ñu répondre à l'appel du président de la République pour la solidarité sociale lolu motax man ci suma walu bop ma jël engagement fi ci biscuiterie bima dëkk di fi man ak

fii permanence ma utal leen ñaari instituteur ñu leen di jàngal alxuraan samedi bu jot dimanche bu jot fii ku fi indi sa doom ñu jàngal la te doo fay dara su vacances yi jotee tous les jours la ñuy jàng alxuraan am cent cinquante élèves yu may yu may yu may yu may jàngal alxuraan ñu jóge ci loolu ma ne bon naa dem ci seeni mag xale yooyu di jàng alxuraan naa dem ci seeni mag ma créer dans le programme d'activité de développement endogène may créer li ñuy wax le G100 at bu jot dinaa jël 100 jeunes à biscuiterie yoo xam ne man maa jël engagement ñi jangul won ñu delloo leen ñu jangi ñi amul formation ma dugal leen ci ay école de formation di fay formation yooyu moom le groupe G5 bàyyiwuma ASC chaque année dina tek 5 millions ci table bi ne ASC bu dem compétition so ñëwee dinañ la ci financer def nañ ko fi. Madame Sissène si Dougal ci commune bi plus de 80 millions ci microcrédit ak financement Jigen ñaa ni tok. les projets des jeunes wax nañ ko à travers le forum des quartiers ma xool nag bëgguma taxaw ma dem ci paa yi paa yi nga xam ne man tuddewuma leen ay troisième âge ay jeunes premiers là, leen tuddee ma ces jeunes premiers nga xamné dañu doon liguéyal nation bi ils étaient au service de la nation ko am liguéy moy retraité kan nga daan liguéyal nation bi nga daan liguéyal population bi nga daan liguéyal dans différents corps de métier mané bon ñoño war nañ leen delloo njukkal ma jël as tuut li ma am engagé wu né lima len mëna jappalé moy li ñuy jappalé seen njabot bon ku ci nek dina la jox saku ciép 10 litres d'huile 5 kilos de sucre pour un premier temps né len fay 60% yi man ma gadul len 40% 100 000 de ravitaillement bo jël 60 000 ngay fay man 40 000. quarante waral le programme PENSOR, qui est un programme d'entraide sociale pour les retraités et les veuves les veuves parce que programme B pour les retraités et programme B pour les veuves dañu def une enquête ça a été des études scientifiques parce que n'importe quelle veuve voilà n'importe quel retraité le coordonnateur Biram Ndiaye moo def enquête bi a recruter les retraités l'agent a ay questionnaire Maneko, Kouti am ñaari Dom wala ñetti Dom munoo bokk ci programme bi ndax am nga ndimbal ku ci retraité sa jabar di liggéey tamit am nga ndimbal ku ci am ñaar walla ñetti doom yu nekk Amérique wala Europe wala feneen am nga ndimbal waaye ñi nga xam ne nag amuñu doom buy liggéey seen jabar liggéeyul seeni doom ay tuuti tànk lañu ñooñu laa soxla ci programme bi pour jàppale leen ñu dem ci veuve yi ma ne yi nga xam ne tamit amuñu benn soutien ndem si yàlla Laye Keita moom mooy jabaram mooy la première veuve li gën a metti ci adduna mooy wàññeeku tuuti tànk bàyyi xale bu tuuti ak doom bu tuuti amuñu benn ndimbal kooku mooy suma première veuve bu bokk ci programme mu Pansor mooy madame Keita noonu la ñu def di ko recruter De recruter retraités recruter veuve qui ci biscuiterie bi yeb nak té man ma jël engagement bi té nako def inshallah ci kàttanu yalla bon tay yi, yeen ñi fi nek retraité 50 lañu ñëk jël 50 bi échantillonnage la ñu tàmbali ci cinquante yooyu suñ leen joxee seen badge badge baa ngi nii saa yoo leen demee ci grossiste bi waxoon naa grossiste bi ñëw Silla ci grossiste bi la mooy suma grossis soo leen demee yóbbu badge bi dina leen jox seen bon pour bind nañ ci ceeb diwlin ak 2020 2020 programme 2020. Moi la moy tout le mois de décembre dina len bàyyi d'abord pour participer au programme da ngay joxe 5000 francs sa ñak duggu ci monsieur le président des délégués de quartier waxnako man non lay liggéey duma ñew talal loxo da may talal loxo ma talal loxo ñu daje motax mo ma bëgg seen ñak duggu ci 5 000 francs yoy lan lay dinañ dem ay yo xamné nit day am du cotisation 5000 francs muy ticket d'entrée yoy ci lañuy jël sàkk ko fayal ko may ko yenen yi mu mu fay donc ñu ngi leen di ñaan leen di dem ration carte carte programme ngeen présenté ko grossiste bi ku fa dem te yóbbuloo sa carte bi grossiste bi du jox su ko fait mom dina jël sa ravitaillement ci mois vous nga signer sa bon mu wax la ñaata ngay fay vous ko fay immédiatement wi di wi avez ci ngay fay li 60 fait, ngay fay man engagé wu 40 pour cent maa ngi leen di gërëm